avant tout di nuyu gaay yëpp di len siyaar di leen jox sen waji way ya nga paré ben combat si diggante yak Fils de balle gars est-ce japp nañ combat boobu pare moo de. <laughs> non c'est monde non man ko gis mu ngi entraîner ma gis gaay du duggal muy wax na non. mom paré na pour bëre yow. légui mo bëgg xamné xam yow combat fa la si gaay tollu mom paré pare na mais man paré mo pour bëre mom le motax général paré pour bëre mom man ak sama staff la ak promoteur bi. li am solo dal moy ma ngi suma bop lamb ma yaakar hmm. man lamb lay def nekuma fi pour ben adversaire. Hmm. dafa am lu bëri lu may xaar am fu ma teg sama bët. waaw mais nekkul est-ce que combat avenir ak li nekk suma kanam ak li may. waaw léegi si si si si li nga wax noonu mais parce que mooy dafa am combat boo xam ne daaw ba ren la woon. te combat boobu foog ñu leer daaw géej ba léegi. mais mhm. combat boobu foog ñu leerlu ko. xam combat bi lan moo tax combat ba léegi mënu sotti. waaw dara loolu xam naa. parce que pare ngeen woon bi passé ba war a bëri mu des deux jours xamu trois jours. mu ne dafa blessé. yow nga génn nga ne non sa li ko waral mooy ñun mun duñ tëb ci wax ci noonu noonu ndax bu dul dara ay responsable lañ. Hmm. te tamit am na lu bëri lu nekk suñ ginnaaw buñ demee bay wax dara rek xëy am na fuñ ko teg ndax hmm. man ci àdduna suivre naa football suivre naa judoka suivre karatéka suivre bépp sport bu nit di def amul ku mus a déclaré ci sport ne da ngaa damm tey même pas une semaine ñu gis la ngay dox. ci na ngeen wax ma non mosuma ko gis. kon loolu nag dama cee teg sama bët xam ne yooyu yëfu naxaate la. Ah, te sport war na dépassé. nit toog ba dernier moment ñëw ne non damaa wala def nii dem legend sa certificat médical yow mii sax bu la neexoon léegi-léegi nga ut sa certificat médical dem ñu bindal la ko nga ñëw indi ko te CNG ci lay sukkandiku pour man loolu warul dañuy nit bu ñëwee ne lii moo ko dal dañ ko defal ko xoolal ko seen bopp bu mu wóoree kii lii moo ko dal ñu soo a nangu man nag li ma gis gis naa ko li may wax wax naa ko samay propre décision bopp laa ci jël am na ci loo xam ne duma ma ci waxaat sama staff laa koy bàyyee mais jàppal ni saa bu ma waree bëree man dinaa bëree mais moment bi maa ngi waajal suma avenir man ak nekk suma kanam. waa léegi dañuy am benn question boo xam damay xool mbëri simple yi nekk si làmb yi yëpp. li ko dalee ba si règle yëpp. général daan ñëpp mais kenn moo ko jaaxal pour l'instant non Franc jaaxaluma. mais seen seen combat yu mu si daan yëpp moom da lay daan lan moo waral loolu. waaw mooy li ma doon wax sànq rek mais yow mos ngaa gis sama combat ak mu jaay ma doole. Hmm. mos ngaa gis sama combat ak mu imposé ma sañ-sañ. loolu hmm. mooy ñoo ma daanu sama première défaite man ak moom Franc suñ première combat dañoo mat si niil suñ deuxième combat dañoo bëree ba temps bi jeex ñu may ñu trois minutes ma taq ko di ko buter ñi tarxiis hmm. comprendre nga suñ troisième combat dañuy bëree ba ci biir bëre bi mu demee noonu. ci biir action mu war a ma nomba mais jàppal ni daf maa war a daan mais lenn moom laa lay xamal si sama moroom bu ma ko defee ma jox yëkkati loxo jox ko xam ni kii kat du sama morom mooy suma moroom bu ma ëppee doole ëpp ma bëri ëpp ma fit kooku ma ne mooy moom ma mën wala mooy suma lépp jàppal ni yàlla mooy dogal saa dajee mu am ci ndam te dama ko koy félicité nangul ko. Mhm. ndax yàqul ci suma yoon dara. Mhm. man am yoo xam ne ay champion lañ te fu may dajeek ñoom daan leen. dëgg la tamaana sax mënuma leen. Mhm. mais loolu day am ci làmb mais làmb ngi suñu kanam. làmb ngi seen kanam. voilà baax na. général léegi ren comme li nga expliqué yi préféré wuñu la ay combat bëri na chaque jour ñu ngi suñu ginnaaw ndax li am solo mooy fi ñu nekk te duñu nelaw yegg fa dañoo jaayante ba yegg fi ñuy yegg ba yàlla diñ suturaal bëri na compétition yu ñuy dem yoo xamante ne amaana néew na suñu moroom yu koy def te bu dul dara ñun dootuma ne sax ñun national lañ international lañ ndax ñu ngi génn ci Afrique bi wala ñu ngi génn ci ci fudul Sénégal di dem ay Gambie ay Casamance feneen ak feneen di fa bëre kon jéggi nañ fii li am solo mooy ñu ngi ci suñu bopp di suivre li nekk suñu kanam proposition yu bëri na mais yàlla nañ suñu borom sutural ba febar yi nga xamante ne nekk suñu kanam di ñu yakal yàlla jële ko fi ba liñ na ma wane ci làmb ci yàlla katanal ñu wone ko. dama gis benn mbër boo xam ne foo tund rek Mama Yaa mu lay laaj. waaye kooku du ma Mama ya Casamance lañ daje mu gis ma di ma jox loxo di ma bégee ndax gëmul woon ni ñun war a ñëw moom bu ñëwee foofu ay booy lay dajal yoo xamante mënu leen yëngal man buñ fa demee ñun dañ koy yëngal ba ñoom dañ koy yéem maama yaa du ma moromam maama yaa c'est normal mu tëkku ma du ma tere benn mbër bu ma tëkku mais moom du ma moromam. wax làmb yàlla mooy jël kenn jiital ko wala mu jël kii jox ko lii kii mu jox ko lee mais bu la yàlla jiital mukk ba nga yaakaar ni yaa gën ñi ci sa ginnaaw mm-hmm. bu la yàlla kàttanal ba nga yaakaar ni yaa gën ñi ci sa ginnaaw man ni ma gëmee sama bopp noonu laa gëmee booy ndax ay mbër lañ ay champion lañ te koo gis mu doon fi dara rek amaana dañ koo teg loxo ba mu doon dara Balla Gaye tëbul tëb doon dara Modou tamit noonu ba muy ñëw dañ doon wax naan du booy Niang am na ñoom bu ñu koy gis ba muy débuté dañ naan mooy lool noonu Ama mooy seen caatu kër te amaana ba ñoom Pathé Baldé di yëngal gars yi ñu ko woon mais teg nañ ko loxo ba mu doon champion man booy loolu laa gëm ci ñoom tey faw ñu teg leen loxo dooleel leen jàppale leen te sàng mu ngi doon wax point bu am solo di wax affaire maire Malika di leen xamal ni maire Malika amul maire Malika benn bureau yaa ma neex la am gars yi di fa nekk di fa seen affaire comprendre nga ndax jeunes yi nekk Malika amul ku fi gis boppam ci Malika te li ñuy ñaxtu bëri te loolu nag ñun jeunes yi ñoo koy xeexal suñ bopp ñu fi nekk jàpp suufu ko lekk di jaxase di jaay te apporter luñ dëkk bi bopp comprendre nga sport bi amul ku ci gis sa bopp ñun équipe bi lañ nekk mais musuma gis ku ñëw taxaw soutenir ñu wala jàppale ñu ci dara te loolu dinañ ko xeexal suñ bopp ñu fi nekk di jaay suuf si ak di jaxase Malika dinañ ko lijjantil suñ bopp <laughs> waaw di sant ñëpp di ñaanal ñëpp taala yow li booy wax sànq yow yaa njëkk a woo salle de jeu di ñu jéem a tëggal combat champion nga woon doomu yéen ñàkkul ni yàlla moo dogal train nga yor micro bi mais yow bokkoon naa ci booy yoo xam ne bu ñu daan débuté da nga naan wax non booy bi buñ ko jàppalee wala nàngam ndax yàgg nañoo ñëw sa ba bi di fa g nga naan booy dinaa la utal combat wala war ngaa mën a doon bër kon yow suñu garant yalla moy def ku ci nek rek bind na noppi na quoi. ku si nekk yàlla sa destin démb tey soog a ñëw. dëgg la mais yow bo simé ko waan def sa caleçon damay tit dama naan ndax nit dina toll ni wallaahi ndax nekk na din ma kenn dula yëkëti man ma lay tingam. wallaahi azim man limay wax ni man dama ko mëna sédé ndax luma dund la man ak yow danga naan jógee fële di daw man naan ké kal la tànk di lang ki kal la so taqaan fi dañ naan mbëru séeréer bi kal la machallah kon tey ñun bu ñu dawaan doon say booy ñu daan ñu daan toog ak yow nga ñuy conseiller naan ñu kaay leen ma tëggal leen combat wala perkamu day tëgg ay combat di ñëw di maye blouson blouson orange rek bu ñu la gisoon ko sol ko dañ daan def lu tout pour a sol blouson kon nag yàlla mooy dogal xëy ñun ay <laughs> mbër lañ léegi yaa ngi suñu ginnaaw mais <laughs> loolu la rek quoi li nga doon conseil di ñu ko ñaanal moom lañ suñu borom defal mm-hmm. di la wax ni ñaan gi ñu ngi ci kawam ñaan yàlla na yàlla xeeb doori mm-hmm. naan lu tamit bonne continuation quoi vraiment man moom lu may wax du ma si ragal dara ñaan naa yàlla mu nekk roi des arènes man mooy mbër xaw dara lu may ragal si gars yi li may wax caméra yi nga ma tiim général mooy sama mbër te ñaan naa yàlla mu nekk roi des arènes ok boy ñoo fa